xam nga université d'abord dafa am surpopulation déjà c'est une presque une ville xam na ni boo xoolee la fay nekk étudiant ak la fa nekkul étudiant di nga dem ci deux cent mille habitants yoo xam ne ñu ngi ci biir euh, université waa léegi nag li ci nekk mooy xam nga étudiant moom euh, li ma gis léegi dafa jaaduwul hmm. ay étudiant ceci étudiant cela hmm. waaw étudiant socialiste xama libéral yu amul solo un étudiant dafa dem foofu pour am formation. Mm-hmm. en principe un étudiant il doit être contre tout le monde. Mm-hmm. c' est pour sa formation. war nga mën a jàng contre pouvoir contre opposition war nga mën a eh, indi ay argumentaire mm-hmm. ci toutes sortes d' boo xam ni indi nañ ko. parce que foofu lex lex donc la la lumière et ma loi il mm-hmm. faut faire lumière affaire contradiction mm-hmm. mais nag contradiction dans l'intelligence la tolérance et l'acceptation de la différence de l'autre mm-hmm. loolu mooy euh, principe bi mais yàq nañ ko ndax politique étudiant man dama xam étudiant socialiste mooy man mosuma ko xam étudiant libéral mooy mooy lan ñun ñëpp yor ay parti dañoo obligé wuti ay étudiant parce que bon boo il faut il faut que euh, parti bu nekk am étudiant mais étudiant moom bu mu fàtte mukk ni li ko yóbbu ci université mooy dafa a jàng am xam-xam. mais alors bu ñu la déggee bu baax Moustapha Diagne est-ce que kon les deux termes vont de pair. Mm-hmm. politique ak. non euh, pour man étudiant nga affaire diine. affaire politique affaire amicale li nga ko war a génne université bi. Hmm. ah oui. surtout daayira ah. yëpp laa wax lépp. un étudiant c' est un étudiant point pour ñu ci yokk leneen moom daal la bëggee expliquer. Mm-hmm. Mm-hmm. li nga am na étudiants yoo xam ne yiy réussir yu bëri dañuy dugg euh, université jàng génn dem defi leneen mais jànke xam nga autour de ces la souvent y' a beaucoup de corruption. Mm-hmm. y' a beaucoup corruption ci codification bi xam ngeen ni muy demee. effectivement da ngay gis par par exemple étudiants yu ran étudiants yu yor liste. ñu yor seen i loo. ñu yor seen loo. bu waaj yi ñëwee war a fay am ñu taxaw. waaw constituant. heureusement sax léegi ak bancarisation bi. yooyu sax jóge na fa. mais y a trop de corruption à l'université. mais ni nga ko mën a xeexee. waaw mais moom laa la bëgg expliquer dafa dañu fa war a génne politique. dañ ko war a interdire. interdire affaire religion religion. daayira yeeg yooyu interdire ku bëgg daayira boo demee seen koñ am na daay mm-hmm. est-ce que dina yomb parce que loolu yàgg na fa ah. waaw mais xam nga kii dañ ko fa parce que day day nekk une institution. Mm-hmm. boo ko laalee kay da ngay dingat nangam nangam. Mm-hmm. mais fii kenn gënu fee nekk jullit kenn kenn gënu fee nekk chrétien kenn. ces organisations là lañ ko jëlee université ba xale yi seen i parents sëy ba université alal ju bari lañ def ci ñoom. c'est des financement énormes dañ fay dem bàyyi njàng mi nekk topp topp ay politique topp yu kenn xamul loolu amul amul solo. par exemple. ñun bi ñuy kii bi ñuy bi ñuy bi ñuy bi ñuy bi ñuy heure bii bi ñu daan nekk université suñu suñu suñu ay euh, camarades yoo xam ni dañuy ñëw ne dañ dem kii euh, jumaa ja ma ne pour pour pour julli. Mhm. julli ba fajar ma ne xanaa yi bu ñu xëyee du leen jàngi. à l'université ah oui. parce que dafa dañoo quoi julli fajar xale xale ay julli julli yu bari baaxul ci moom sax xale li mu war a def mooy na def cinq prières boo jotee mu mu wóor l'islam simple def sport. jàngi wuti xam-xam. Mm-hmm. xale lu mu def lu wuti xam-xam ak toppatoo santé mi ngi nax boppam parce que day weesu étudiant normalement c'est en quatre ans cinq ans lu ëpp lu bari bari six ans mais mënoo nekk éternellement ay étudiant mm-hmm. donc pour man foofu il faut couper affaire bi à la à la à la source dañ fa tere yooyu yépp université pour affaire yu jàng la ak jàngale tant defu defuñu loolu lii di fa jóg xam nga léegi sax am na glissement bu demee banaan ay étudiants séeréer rek joolaa ak wala. Mhm. c'est quoi cette histoire là. le débat sur dem ba mu am ay mordom. mais mhm. ci foo xamante ni bii foofu mooy le le de la contradiction mhm. ñu dem ba ci jël jël ay contradiction di ko di ko base ci affaire yu dangereux yu demee noonu nga xam dëkk yu mel ne Rwanda moo leen moo leen tas foo xamante ni étudiants yi ñoo waroon xeex affaire yooyu. ñoom ñoo koy alimenté. mais ça c' est c' pour la pour la société. mais bu université la fa nekk war nañ koo seetaat. ok war nañ koo seetaat bu baax a baax. mais bu ñu sukkandikoo ci tey ji li nga xamante ne ni moom la kenn ci xam naa ne peut-être mën nga am nga àddu ci mën nga mën nga ci tamit bañ a àddu mooy euh, le leader de PASTEF Ousmane Sonko tey mu bind ci page am Facebook am ne. Euh, li ñu gis université lépp lu ci bëri yéen ñi nga xamante ne nii yéen a ŋànk nguur gi jamono ji yéen a ko waral parce que yooyu yëpp da ngeen a patt pataaral ba yooyu dem ba am doole ngeen di soog a jug di wax alors ndax partagé nga boobu appréciation bu mu daal di def. mooy Ousmane Sonko dafa yabaate wala Ousmane Sonko mooy wax loolu. Hmm. mais moom avec tout ce qui s'est passé à l'université à cause de lui kan moo dem def université malgré affaire pandémie nga dem ko di yëkk say loxo di woote di woote du moom. il voulait passer à l'université biñ ko biñ ko biñ ko biñ ko bi biñ ko biñ ko convoqué quoi. il faut arrêter il faut arrêter vraiment gis nga. am njàng kenn du ko foowee <coughs> bu ñu politique dañu dem politique ci biir Ousmane Sonko université sénégalaise moo ko may lii mu am loolu ko université may na ko may ay rakkam ay jarbaatam ay ay ay ay ay ay ay doomam lu leen ko may c'est loolu mooy loolu mooy loolu mooy dëgg ñun am kenn amul droit du yàq université en quoi l'état du Sénégal ban intérêt la am ci dem université boole ñu xeex nee na seen yaafus système bi baaxul si retard retard paiement. paiement yeeg mm. tout ça conditions yi ci amphi ak mm-hmm. euh, logement bi à l'université bi. non je suis d'accord nous avons des des difficultés parce que il n'y a pas eu de planification mm. tey état bi c'est-à-dire de 1960 ak léegi ngay wax parce que on aurait dû quand même dans chaque région avoir une université. Mm-hmm. bu yàgg il n'y a pas eu de planification. Mm. la responsabilité c'est du régime de Senghor au régime. de président euh, donc Macky Sall. c'est normal c'est c'est partagé c'est l'État mm-hmm. de façon euh, globale structurelle. loolu moom ñun ñëpp d'accord nañu. d'accord mais nag du tax quand même ñu bëgg a ñëw foofu dugg université jël xale yi def leen bras armé d'un parti. c'est ça qui se passe mm-hmm. parce que ñi dee yëpp boo ci benn doom position bi dee amul fii ñëpp ñu ngi làq seen doom mais doomu jàmbur yi génn leen ñu rey leen. c' est ça la la problématique nañ nañ arrêté affaire université du ay caaxaan. il s'agit de l' avenir du du pays. te xale yi léegi suñu euh, yi nekk université suñu làkk tubaab nga yéemu ci yàlla. Mm-hmm. y' a un problème de niveau quoi. ah y' problème de niveau. <coughs> yooyu c' est ça c' vrai débat mais bu fekkee ne xale yi kay su ñëwee ñu dugal leen ci ay amical dugal leen ci ay kii amical sax bu ñu kii bu ñuy def AG ay jaas la ñu indaale. mës ngeen di gis lii. c' mais il faut il faut qu'on s'arrête mhm. ensuite bëgg a nekk étudiant am tous les droits mhm. bëgg a nekk étudiant doo am benn coono mhm. loolu amul jàng xamut xam-xam dafa ànd ak coono mais ñi nekk daara yi ñi ngi fi yeneen wax sax lekku ñu kenn mos leen dégg ah waaw mu ngi noonu te les conditions de l'université moo gën mille fois les conditions dans les dans les daara et même de certains mais est bokk na est-ce que bokk na non dama ni jàng ku wut xam-xam ku ne pour mu barkeel. fa nga nangu coono mu ànd ak coono. Mm-hmm. kooku yàlla moo ko mayul ku ku ñu ku ñu ku ñu bind. Mm-hmm. ku ñu nay ku ne nga bëgg xam-xam. foog nga xam-xam dafa ànd ak coono. Mm-hmm. mais doo xiif doo mar doo rafle ci moo xamante ne bii loxoom jotul ginnaawam. xam nga bu ñu wax Sénégal day mel ni nekk France wala États-Unis réew mu néew doole lañ nekk pour le moment kooku aussi il faut ñëpp xam ko nous avons un 4000 milliards de budget 4000 milliards de budget boobu boo demoon ay télévision CNN. wala donc télévision comment arabe yi. Mhm. mais ñu ëpp budget. mais mais télévision laa wax. mais est ce que loolu raison la puisque tamit budget bi xam nga dañuy wax sax ba ci ren. Mhm. li ñu doon gën a mettre en avant moo di le budget programme. Mhm. est ce que vraiment def nañ ko tam ci priorité fii mu nekk. mais non xam nga université quand même bu ñu waxante dëgg président Macky Sall def na fa bëri soo demee léegi yokk nañu les kii néegi. logement bi social bi logement yi yokk nañ ko. la mu tabax ma nga ne yoo ko dañu multiplier na lii presque par par par douze muy benn ñaareel ba bourse yi yokk nañ ko ñetteel ba ticket yi wàcce nañ ko cent franc cent franc fukki dërëm kooku kay wax dëgg yàlla. waaw université Amadou Mahtar Mbow ngi jooy de bu jam ñaajo. waaw maintenant nag y a des nag yoo xam ni souvent du euh, école bi la ko am université am ko réew mi am ko université ci biir réew mi la nekk problème yi muy dund mooy problème yi waa réew mi dund. mais mosuñu toog benn année te ñu tout les mois les bourses. c'est comme les enseignants foofu foofu sax justement moo tax ma ne dogguma sax yàlla bu la dee donc mais euh, bourse yi loo xamante ne ni ñoom chaque mois dañ koy xaarandi yéen gouvernement bi xëy na waroon ngeen di mën a programmer weer wu jot. balaa ñoom ñuy andi ba waaw di wàcc ci mbedd yi. ngeen ngeen jox leen parce que ñu sànni xeer ba pare soog a fay. yéen dañu seetlu ne bu ñu sànnee xeer rek ngeen fay leen. loolu ngeen ci bëgg parfois état lay doon. Euh, c'est-à-dire li ñuy état mooy xam nga bourse yi doo ñëw rek ñu ne fin de mois nga dem déedéet. Mm-hmm. chaque dañ koy engagé chaque chaque weer. Mm-hmm. université ñoo koy engagé ministère de finances ñoo koy ñoo koy fay. parfois ci engagement yooyu dafay am ay problème dafay am ay erreur dafay am ay ceci parfois aussi réew mi day am ay tension de trésorerie bi ñëpp di ko di ko yëg ça il faut que tout le monde le le le ndax mënuñu ci fii na euh, bon une bone fois pour toutes ñu ñu daal di koy saafara ndax gis nañu fi mm-hmm. dem na fi ba ñu ci bëri ñàkk ci seen bakken ndax ay réclamé ay bourse waaw mais loolu non d' accord d' nañ ci président jël na ci ay mesures. d' li mu mën mooy toujours di wax gouvernement bi. dañ fay à temps mais dama la wax ni parfois dañuy am ay tension de trésorerie problème bi Sénégal day am problème amul fenn foo xamante ni boo dem ci àdduna bi te université du pose problème mhm. c'est c'est dans tous les pays du monde mais quand même dama la wax ni retard de paiement dañuy wax mhm. mais kenn du wax paiement ñi jaar université yëpp xam nañu ni. musul toog benn weer boo xam ne dafay musul wala war dafa moom gëm yi dinañ leen dégg. mais bon euh, puisque ñu ngi ci crochet bi nga xamante ni moom moo soxal wàllu njàng mi peut ñu xuus si rek après dem ci deuxième partie bi. ndax loolu la waroon njëkkee commencer ah. par bi. amoon naa sax benn question pour amicale yi parce que. Euh, le conseil euh, restreint de l'assemblée de l'UCAD. nag moom baa lu la wax ne la moom ci njàng. <laughs> non je sais on peut en parler voilà mais mais puisque yëpp njàng mi la rek. njàng mi njàng mi faudra ñu wax si quoi. parce que ñi nekk ci éducation bu yamamaay bi déwén ñooy nekk fële. bon si si ay at ci kanam ñooy nekk fële. Mm-hmm. donc euh, le conseil restreint de l'assemblée de l'UCAD dafa wax ni moom dafa bëgg maanaam amicale yi ñu mm-hmm. dissoudre leen. Mm-hmm. génn seen loxo seppi seen loxo ci codification chambre yi parce que sànq mu ngi wax ak corruption bu ci amee tout ça mais le problème qui va se poser euh, monsieur Diagne mooy est-ce que du nekk beneen xëccoo encore ndax amicale yi yàgg nañ biir université ba ñu dem ba tey jii ak pouvoir beeg fi tolluwaay bi nekkee tout ba ñoom ñu ngi doon waajal sax seen ay élection est-ce que loolu tamit mun na nekk lu ñuy liggéeyante ci ci terme terme je suis contre les amicales hmm. man man dama ko de tout temps naa la affaire politique affaire diin affaire amicale dañ ko arrêté à l'université na état bi jël ay responsabilités en quoi on peut donner à des étudiants wala organisations étudiants ay affaire chambre c'est le la corruption de la corruption yàlla ñu jox pouvoir. marché de dupe. non ñooñu da nga leen jox pouvoir. mais ci ñi ñu ko defee dafa mel ni ci seen droit yi la. non non du question droit ak yooyu dama ne état moo war a joxe chambre. parce que affaire chambre kenn dénk ko ay étudiants. notamment COUD aussi COUD lañ ko dénk. na COUD jël ay responsabilités. mais COUD finalement est-ce que kon moo politisé euh, codification. non je je sais pas je ne saurais dire nekkuma fa pour xam. Mm. mais man daal li ma ci xam mooy de tout temps les amicales ont posé des problèmes de tout temps. te ñi ñi jiite amicale yi kat bu ñu daan def grève bi gis nga dañuy wax dem leen grève suñu paree suñu duggee di di di di jénne gaay naa ni ataaya. kon daal gis nga ni kon yow. d'accord nga ci fermeture fermeture ni d'accord naa ci. d'autant plus que réew mi fan yi dafa amul lu fi nekkoon. Mm-hmm. est-ce que ñu nekkoon ci manifestation yi daw ñu làq université man loolu lay wax donc il faut qu'on fasse très attention université dañu ko war a nettoyer comme étudiant. waroo fa nekk. ku jàng ba sa jàng jeex da nga war a jénn abal say say say rakk ñu dugg. feeñ na sax si euh, ñi faatu. Ah. parce que ñu ngi fësal ni ñu ci bari nekk tuñ woon. depuis 2017 non wax ni boo demee euh, affaire clando yooyu. ku ne xam ne ñu bëri ñi ngay dëkk université jàngatuñu yàgg na nañ jënd université bi université pour étudiant bi vraiment ku jàngatul wala ku jàngul dëkk fa dëkk ko war a jënd assainir ko mais université boo xam ne dafa daanaka fay mel ni Sandaga loolu c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas normal jaaduwul mieux bu ñu bu ñuy jàngee dafa am ay conditions yu mu laaj man ay affaire amicale tout ça j'ai dit j'ai toujours été contre au nom de quoi ñu jël ay chambre na jox ay amicale ba leen joxee pouvoir kay day am pouvoir ci étudiants yi di leen man di grève loo di leen man di joxe ay ay mots d'ordre ça il faut il faut l'arrêter loolu na na na kudd jël ay responsabilités mhm. vraiment loolu moom dañ ko war a arrêter euh, teg ay critères yu bëri sax nañ ko nañ ko privilégié daal ñu wàññi nañ ko dématérialiser mm-hmm. cest à loxo loxo sax wóotu ci amati mm-hmm. ñëpp dem inscrit ci kii bi après machine yi ñooy def affaire yi en fonction des critères machine classée ku war a am nga am cours am du am pour man loolu la mu am transparence totale. ñëpp noppal ñëpp noppal. alors justement madame monsieur may rappelé rek ne euh, Mamadou Moustapha Diagne moom mooy tey suñu invité ci La Voix du Soir nekk nag euh, directeur formation communication ministère éducation nationale justement en parlant euh, éducation puisque ñu ngi ci njàng mu kawe meeg njàng mu digg doom bi alors est-ce que mën nañoo xam programme yi ngeen nasoon mooy lu ci soxal ay PDF ay paquet fan la toll ndaxte mënuñu invité ku mel ni directeur formation communication pour mën a xam tolluwaay bi. Euh, fan lañ toll. xam nga PDEF moom euh, mooy programme décennal de l'éducation et la formation kii na jeex na. Mhm. ba bañ évaluer ko. bañ évaluer ko après li ñu teg euh, paquet bi. Mhm. mu ñëw ci entre presque 2012 2013. Mhm. lañ ko lañu indi paquet. jëmale ko 2025. voilà jëmale ko 2025. d'accord après sax ñu arrimé ko ci PSE. ci yoonu yokk d'abord ensuite PSE. paquet nag. li muy lijjante mooy euh, programme d'amélioration de la qualité. Mm-hmm. qualité mooy formation enseignant yi. Mm-hmm. d'abord enseignant bi dañu war a agir ba tax na euh, bu njëkk BFM moo nañu am enseignant mais léegi yëgale niveau bi ba bac. ba bac à partir de bac la nga mën a nekk enseignant. Euh, danañ def aussi formation aussi tabax nañ ay centre de formation ci région yëpp muy. li ñuy wax les centres régionaux de formation des personnes d'éducation mm-hmm. ak ak FASTEF nga xamante ni bii suñuy jàngalekat foofu la ñuy jaar pour ñu pour loolu également def nañu amélioration ci ci formation ci wàllu euh, qualité ensuite muy euh, wàllu gestion transparente léegi dëkk boo dem am na IA am nañu donc 16 IA ak 59 IF yoo xamante ni bii mooy gérer enseignant yi enseignant booy boo gis rek foofu la dossier am di di jaar lu mu bëgg a xam bu ko neexee dem IEF bu ko neexee dem IA bu ko neexee ñëw ci ministère bi am na service yoo xamante ni bii mën nañ ko wax ni leen doon léegi ministère bi ni muy doxee leer na ci bopp acteur yépp ba lu ñuy def euh, dañ dañ koy bokk ak euh, acteurs yi muy syndicat muy société civile surtout ministre bees bi di Mamadou Talla nga xam ni dafa ni il faut ñu apaiser Euh, donc le climat social pour pouvoir travailler. mais climat bi yaa ngi koy wax apaisé mais gis nañu G20 démb xawma euh, génn nañ ci wax ne jeudi dañuy def débrayage xawma mercredi ou vendredi ñu def grève totale wala général mhm. alors euh, ci moment bu ñuy wax ay apaisement moment bu ñuy wax qualité dans l'enseignement ou bien dans l'éduc au niveau de l'éducation nationale est-ce que loolu lépp bu ñu ko xaymawee ndax mën nañu jàpp ne qualité ba te am na ci. du duñu dañu mere dañu mere euh, état bi te war ñu mere état bi. Hmm, lu tax ñu mere leen. parce que dafa am G7 am G20. dañoo amoon presque 43 euh, syndicats syndicats yi nii syndicats yi bëri na nañ rationaliser parce que bu ñu daan bu ñu daan dem négociation 43 syndicats ku nekk di wax sa bopp. Hmm. ñu dañ dem élection suñ demee élection ku amul 10 pour cent. dootoo bokk vraiment jiital. fu ñuy waxee. ñun ñëpp ñu d'accord ci. Hmm. état bi validé ñu def arrêté ñëpp d'accord ci ñu dem élection cette organisation ñoo ñoo jéem alors amul woon G20 ñee aussi commencé wax résultat yi nangam nangam dem créé G20 mais aussi loolu tamit du démocratie ah. du démocratie ànduñ ci ba tey comme ñoom légal ñu daal non légal lañu sax parce que c'est des c'est des c'est des associations reconnues d'utilité publique en tant que syndicat hmm. mais nag dañ leen a gagné li ñu war a def kay. ci wàllu papier daal kenn rek kenn wuti ay nit ba prochaine élection ñu góorgóorlu bokk ci. ba gagné bokk ci ñu am 10 pour cent. saabu dëgg loolu mooy mais ñii di saaga yëpp système bi loolu bokkaluñ ci négociation yi donc moo tax euh, dematuñu séminaire dematuñu ak gouvernement bi moo tax ñu ngi sànni xeer. d'accord en en vertu du cas la ñu war a lancer ay mots d'ordre. <coughs> Ah, jamonoy bii kan nga gis muy grève fi mu nekk nii. Hmm. kan nga dégg muy grève ci gànnaaw Covid bii. kan nga dégg mu ngi dee mais enseignant boo xam ni defal ndànk rek mm-hmm. weer bu dee nga jot sa salaire amul benn weer boo xam ne dina dee di jot seen salaire mm-hmm. waaw lu lépp luñ mën a wax mooy indemnité mm-hmm. indemnité bac dafa tardé wax dañu wax léegi fay nañ ko indemnité BFM fay ko oui le problème jamono jii du jamono joo xamante ne Sénégal a suffisamment de problème le monde a suffisamment de problème pour ñu teg ay plateforme revendicative mais dem nañ ci ba dëxëñ ci li nga xamante ni moom mooy seen 5000 emplois yi ñu wax yi nguur gi wax rawatina wàllu enseignants yi recrutement yi ngeen war a def euh, ñoom nee nañu bon ba tey seen xel dalu ci transparence ak nu nu ñu ko war a tabbeek yéen yow euh, puisque vous êtes le directeur de la formation communication tabb gi fu mu toll ak naka la nar a demee ndax dina am transparence ce que je dis ñun waxaguñu muy demee après nga jug ni way ñu la war a demee ñu la war a demee ñu war a demee. ah waxagu leen ci. non xam nga parfois aussi je pense que dañu ñun ñëpp dañu war a joxante cër. Mm-hmm. ñun dañoo am problème mu déficit d' enseignant bu garaaw. fi may wax ak yow nii soxla nañu presque cinq mille euh, je ne sais pas. Mm-hmm. ak lu teg ci ay ah, enseignants. Ah. Mm-hmm. waaw en tout cas yegul six mille. mais daal manqué nañu enseignant. cinq mille yoo xamante ne bii war nañ ko am. laala laal li may waxee yow li hmm. waaw président jël neen nañ nañ recruter cinq mille enseignants et puis dañ ko def plan quinquennal parce que li ñu soxla ci enseignant parce que at yi di ñëw dañuy soxla yenn enseignant parce que hmm. enseignant dañuy dem retraite hmm. dañuy dañuy bàyyi dañuy dañuy dañuy dañuy génn classe yi euh, nekk en en position assise dañuy tukki euh, dañuy retraité mais aussi dañuy dañuy génn àdduna kenn ñaanu ko yàlla donc président ne ah non seulement defoon naa cent ci at mi par concours mais daal affaire bi comme dafa situation bi daal dafa alarmante dañu joxe 5000. 5000 boobu nag bu ñu ko def par concours parce que su ñu ko defee par concours liberté wër mooy eh, fii ak déwén du ñu fi génne léegi euh, ku am sénégalais bu am diplôme professionnel da ngay compétir. am na Sénégal bu bëri am nañu diplôme professeur pour jàngale. muy mhm. CIAP muy mu muy KS KM KSCM Euh, donc euh, yëpp am nañ ko. ba ci ñi am bac wala. waaw xam nga kii parce que ñooñu ñëpp am nañu bac. ku hmm. am diplôme yi ma ko wax de mooy am nga bac. waay waaw Sénégal yooyu dañuy compétir jël nga am kay nga nekkoon ci privé bi di jàngale kooku jël ñu formé da ngay dem directement ci classe. kon mbir mi la. dépôt la en ligne. Hmm. yoo xamante ne bii am nañu am nañu bac. Hmm. parce que ñu am diplôme professionnel ci jàngale du ñu mat yoo xamante ni am nañu am nañu bac. am nañu licence am nañu master am nañu sa doctorat suñu bëggee compétir ñoom tamit ñu compétir. mais directeur am na ñu la interpellé ci semaine bi ñu génn. mooy waa promotion 2013. Mm. ñooñu yaakaar am nañ ci yaakaar. Mm. waaw ñu leen bàyyi xel non mm. seulement ñoom mais aussi euh, waa. waa waa SAREPS bu Thiès ñi formé woon defoon formation payante ñoom aussi ñu leen di bàyyi xel ñu ngi leen bàyyi xel kon daal seen xel mën na dal ñu ngi leen bàyyi xel bu baax ñi ngi wax ñu ngi mhm. mhm. leen di bàyyi xel bu baax donc mais c'est ça c'est entre le ministre et le président de la République ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax donc su bala bala nga di eh, kii Youssou mu way kay nga déglu ko am déet kon loolu critères yi critères yi bonne nouvelle parce que mën naa critères yi génnagul sax ñi critères yi ok ba léegi waaye dégguñ ko mais ci wàllum recrutement maanaam ndax yéen a ngi bàyyi xel aspect niveau bi ñu war a amee moom la wax ni boo amul bac doo ci mën doo mën a déposer. mais ndax bac bac kese doy na. ndax saa fan yi tamit euh, ça il faut le reconnaître. Mm-hmm. ñun suñu génération ñi si am bac ba am licence dem université vraiment pour ñu mm-hmm. defal sujet verbe bu complément bu jaar yoon c' est tout un problème. Mm-hmm. est-ce que maanaam critères yooyu wàllum performance bi. ak xam nga xam nga bu ñu defee souvent aussi bu ñu mais dina am aussi test de positionnement. rigueur bi quoi am na test de positionnement boobu dañ Euh, donc soupçonner les niveaux là. tester niveau yi daal exactement soupçonner un peu. Euh, xool non non. vraiment nit ko comprendre ay jàngalekat waaw ñun loolu mooy suñu métier. mais comme jëndee guñ critères yi commencé wax nangam nangam su nga fii nañu bàyyi affaire yu ñaaw njort bi syndicat yi aussi ñu xam y' a pas de cogestion état du Sénégal kenn la ñu wóolu président de la République moom mu wóolu un ministre de l' éducation nationale il s' appelle Mamadou Talla moo am ay équipe dañu bàyyi ñu liggéey. ñoom kat c'est que nee nañu. yéen te li ñu def. li ñu def ñun bu ñu koy xam nga lu ñuy def bu ñu paree da leen di woo amul lenn lu ñu defee du